Assalamualaikum Senegal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Aduna. ah Aduna. yow xeroo rek Aba tay, tey bon So leen gisee li waral sama vidéo bi lenn kese la. lan la. Moy vidéo bi nga xamante ni yéen a ngi gis image yu iman. Ñepp ko gis. ñëpp Euh, ah looy wakkatu ni. Euh, mu doon li nga xam lu ñaka a teggine la. rafetul mom. mu doon vidéo bi nga xam man man kay ñaaw lu man mi doon sama vidéo. ah. ñun ñëpp ñu ngi koy ñaawlu. mu doon li nga xamante ni nii rafetluwuma ko boo juste tooguma fii nii pour teggi tuuma. looy def fii kon sunu temps bi sañoo ko jël ci noonu de kon lu la fi indi. tooguma fii pour jox kii que ça soit des explications. Ah! dama ñëw fii pour jox ki nga xamante ni nii fan si Iman la. ñun fan si. tey bu demoon bay toog ñuy wax si Iman lu bon mu am source yu mu ko défendre. loolu rek laa yàkkamti woon. am fu baax fu wóor fu mu taxaw ne lii ak lii moo tax parce que nit kat boo koy défendre war naa am loo koy défendre. na gaaw na gaaw. moo tax tey may taxaw fii. na Iman nag waxu ko dara leer. di leen ne vidéo bi am na ñoo xam ne gisuñu ko sax. man gis naa ko. parce que ki nga publier sax kontam mooy loolu. maanaam. kontam kiiwul kenn xamu ko. ok yow lañ xam wax ñu kon. mais man si boppam may taxaw won leen photo yi. très bien. wax nga lu am sens ñu xol ngeen gis ko ngeen xam ne bok man grawaluma ko ah! kon dara bëgg jël li ñaaw na mais du lu rafet pour du pour tiktok pour fan la parce que kiko publier peut-être xalam mo tollu non waaw sama xarit la elle s'appelle Jeba Djeba mu jigen jigen la comme man lolo tax vidéo bi gëna ñaaw parce que dafa dafa tàmm di moo wax mon amour ma koy moo mon amour. Ah. sama xarit la man xam naa copain am moom aussi xam na sama copain. kon Iman am nga fara. ah. mën naa ni presque chaque guddi man ak copain am dañuy toog. la. baal baal na tey jii nii ñi xamul ñooy jugé man Iman dama am famille man Iman dama am mbokk man Iman dama am ñu ma bëgg. surtout man. ñooñu moo tax tey taxaw may def vidéo bi.

su amee wax leen ko. am na moom. su amee wax leen ko. yi Fatay foto yi war na ko montinoo les les tof. mais dafa rafetul ci fi ñu ko publier man man rafet rafetlu ma ko man man nag dama am ay mbokk am famille am ñu ma bëgg moo tax may taxaw fii di am lu may expliquer wala may joxe explication di leen baalu ak bu baax a baax a baax. d'accord leen la baal Fatay yi di leen wax ne du lu rafet du lu jaadu vidéo yu mel noonu du pour TikTok. mais ku nek ak sa xel ku nek ak sa maturité fu mu toll ngeen deglo ma xel bañ ma deglo xol ah sama xol bi diana amna ño xamne tay lu nek dina ko deg si commentaire ndàggole fatay s'il te plaît iman dafa sof iman li man jërëjëf mais ñima bëgg motax may wax sama famille motax may wax imaginel sama yaay gis vidéo bi waaye bu ñu def ni way war nako mom motax may wax te dina ko gis xamna inshallah allah ngeen bal ma ak bu baax njaaloo nga xamne ne buy wax day melni ko log ne na baxal ngeen bëgg ma no leeg mom ko wax ah yeen tamit ah booy pëloo la waxal say wax rek te nga génne ma si ñaari jàll càmmoñ nga kenn mënu laa jëriñoo dimbali ma rek nga wax say wax te ma ci sama aala mbay parti newu ci dégg avertissement nag. 2 millions laa fay. 2 leen lu ma ah, defal. moom war naa baax ñu xool. ndax am la naqare neex na ci xol moom ñu xool rek. du leen sensibiliser. ci lan. boo leen di joxe seen xaane. du yaa fi joxe sa lu xew. ngeen xam bu baax fu leen koy dugal. yow de fi nga dugal xam nga ko moom loo bëggoon. maa ngi bëggoon tuñuy mel ni tuñu kaay. tuñu deux millions. tuñu kaay la. waa tuñ seer na di ñaari million tuñ léegi. maa ngi bëggoon tuñuy mel ni tuñu kaay la. ah kii de gàdd naa xam ne këpp katu ndog jënd tuñu ñaari million ñu tuñu mille cinq cent réero. subaana lay. ku bëgg lool bëggu li lay ne. Boku jere. Ha, wey, mune. Ternyata ke sama tangga. Polis direct, polis direct. Tela sama tidur mata matang. Oh, lelar ma de bebe bas. Lala sama sohna. Ngay tahu ya, ko ni bo duggé ci Sama sohna. Mo ragé nga di. Sama numi way nga. Dé hésité nak dé. Sa ñett nit yi nga melni fecc kat bo mar la nga waccé ko mais machallah merci beaucoup sa yéen a agsi na da nga ko mënul rek waaye sa yéen a merci bisous. ouais doy na nag. TikTok. waa TikTok. arrivage bu bees. assumé leen rek. waa doo nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuyoo bi gudd ta. jaaraama te naa laa toll golle den yaa de seeda na. xëy na da nga ñoo soxla. welde ko noonu welde ka men Baba Maal Djiby Dramé Demba Guissé s'il vous plaît. to ngejanno ɓe nguure men wala sama mbokk pël muy seetaan vidéo bi rek. da ngay bay jàng. saako wala ndax yaangi wax di rey rek li nga wax di ñor na wallahi wallaahi non. yàlla ci wax di ah. hakku hakkunde ngalla mi eh, ko don don mi ko xamna ni ne li nga wax de mom in eh, kala yuri yuuriiɗo la mi da yuro mo kala ma yura ki la mi da yuro mi da yuro nga fop. fok yu nak ah. do lando se do ngi jangono e ben gure mon de. débat bi yaakaaroon dañ ko yemal fi ndax ki xaw li mi wax di de. na mi da Dakar do ci sarahu senegal ndakaaru lu ñëw ñu boole leen coggu birete o seere o compte ɗo no moƴƴinani sabu to ah maire Pullo defal ñaan s'il te plaît compte gi jogaaki téléphone luɓoto woni madame sa kaddu gu mujj kono noon

ñu ñëw ñépp lay génnee réew yaaram koo yoreel bor ko ku la ko yoreel déclaré mu fay la te xam ne yow génn nga ba pare xar yi tiit nañ euh, xar may ma du la may de dégg nga dégguñu de boo ñaawee rek yem ci waa kii nag amul confiance ci boppam mu yóbbu euh, euh, leen du la mën a dimbali kay boo ñaawee rek yem ci ok boo ñaawee yem ci ñu yóbbu la àllu Mali jàppal na yow yaa nga ca ginnaaw àllu Mali ba fekkee saytuñ dafa rëy oh sama xol nah. bi jeex bu setu seetuñ ree yóbbu allo bourgeoisie jappal ji jàppal ne dem top fa kon xaar bala ñu lay yóbbu Macky taxawal ci lolu Macky Sall bu top sa xol provocation la bu ko tontu sa kàddu gu mujj lan la barakallahu yéen iya nga xamne nak da ngeen di faral di suyee one xbet utiliser len suma code promo njay ya. 21 lepp nga bindé ko A ah, majuscule lien bi moy sama bio TikTok da ngay jaaré fofu nga télécharger application bi nga inscrire sama compte def sa premier dépôt dina la may 156000 francs de bonus au revoir. waa man lii bi muy am fu ma ne woon. dox si say waaw di la bégal. dukki ma ko foofu. même may ray. ah moo ne moo ma di waaye soxna yi ma ah. mbay ma ci weeree garab gi moom ku mu doon ma. gëmal gëmal gëmal. wanante ginnaaw. eh eh eh. cëm. yen ñi fi do nek di musique nak paré ngeen yen dot leen musique. pour que du ma sa doon keneen bëgg naa la am son yu. ah tégalo ba ca escalier ñëw. maajum sama xol bi buur yaay ki ko moom. lay lay la la tubarkalla. bu dul yow du ma. lo te graf ci param kii pour lan la. sa don sa don keneen ku si nan muñ nan andal do muñ. dellu si waat ne kaay ngeen yaakaar ne son bi du ma ko challenge yóbbu ya, ma parc parc an ngay dem ñu lay nangu ci suñuy loxo di la jaawale gefal mukk baar rek may sa aan imaan way nga loo xamul yow ku la yóbbu parc bala fa yaa si biir géew sax man maa lay daan risque sama waa moom kan ngeen wanante kanam wanante ginnaaw rek bëgg nga moo dund loola aljana oh, wala sawara kay bëgg nga moo dund loola aljana waaye moom sa digganteeg ay lu ne lu mu dem dugal ma fi lox yi di may sama bi ko challenge kon ma ngeen pick up bul may ah je ne peux plus mënatuma baax na ah tata iman est ce que nga expliquer yow ak lu ngeen jotee la def ah musang sañ boy pula yow dañoo ko mbane ndomb ak bopp wala nga bëgg lu sa alam bay paate eh. kamu dara xamoo foo ci tàmbale doo ci ah nee ngeen def je ne suis pas l'ami de tout le monde je parle avec tout le monde mais je ne suis pas leur ami l'amitié à notre époque est sur la bouche d'un grand nombre de personnes mais dans le cœur de très peu d'entre elles ils vous appellent amis quand ils ont besoin de vous et ennemis quand vous ne leur êtes plus utile derrière toi ils parlent de toi, devant toi ils se taisent. Je préfère avoir quelques amis sincères qu'une multitude de faux amis qui me trahiront à la première occasion. La qualité de mes relations importe plus que la quantité. L'amitié demande beaucoup d'efforts, elle exige surtout de savoir offrir ce qu'on a de plus cher dans la vie. Le temps. Si tu n'es pas capable d'en trouver pour moi, alors passe ton chemin, je préfère être seul que d'être mal accompagné. De plus je m'habitue vite à l'absence des gens, au cas où tu te penses indispensable. T'as su apprécier ma présence, maintenant tu vas un peu goûter mon absence. Avoir des amis vrais et fidèles qui me soutiennent et me comprennent dans les moments difficiles est inestimable. Je choisis donc avec soin mes amis et je m'efforce d'être un ami fidèle en retour. waaw man damaa sangoo garabu jàmbur wala damaa laal liggéey jàmbur ba àll piita bu jug rek taf sama photo di wax kii kanam gu tuuti gi di mel ni catulettu naan sa lumbati far ngañ ngañ sa gimiñ gu tooy gi yaaram seex génna ci man wax naa la ko nag daa guddi waaye ko noonu <laughs> waaw nag xaj bu jug rek wa aa yow Ndiaye Lo yow lay waxal booba léegi maa ngi naan laa tak ma takk ma nga hmm, woowu waxut ak man du man dem naa sa jàkk ja mooy nañ ma la ban imam moo def lii nag du bàyyi affaire man toppatu ma la bas laa topp de tey nag bu jël si sax na si man waaw waaw sa ni koy def ni man lu kañay gis si man léegi su ma nak? nag naa ñëw Touba ndok Bambey laa dëkk man jigéen bu baax si si ku bax nga. jigéen ñi woon na la. ah loolu sax de dal na xel noy sey mo ñewé na daf sey daf sama ah madam kanya yow nga kan, kan? oh. oh, ni damp kan ak kan. naa dàmp sa yaay man maa ni xala bu ndaw la ñent yoon la mos am jëkkër. oh ya, wuy sama nday ma wara nek juromel bi. baax na sigil expliquer ma sa sey so sama du ju je oh sa jëkkër ju njëkk ja. yaayu laa sotti café ko tang rek. wuy sama nday ah. loolu si nek dara nekku ci sama ñaare lu sey oh lu sey bi so wuju la mude mu de ñu xasi ko yeen ñi mën a malank ñepp nanguna ñew leen a ah, lolu si nekk lolu yi dara new ci lu sey bi oh sa lu sey sama dom rek la sangé asik ñu fase ma mo way ah si nekk daa madam oh, madame kanya dara new ci daa tilimoon rek sama lu sey bi dugg naa na ruba ma dong fook ak doom yu ba dugal ko ci den ba sa ñentelu sey bi so ñeuke la yeen cour ñu fasé ma la ilaha illallah kon Nafi mbay nga yaakar ni kon njëkk li ma la won may ak yoy iya yep rek ha lolu ci dara neew ci nam ko waxtane legi siggil wax ma li nga bëgg yoy ya, ñay lo wax na lolu le je sama va muuru ñew ah li nak sun loxoy wa koñ génn ci waye de mënu leen ma dara musse kañak madame Borod la jéemale nañu ñay lo yow lay waxal kep ku nga xamanteni ni nak nag dugg si iman. ha man do wax deug yalla rek ki yabu ci sama mbojj de lu wax ne njaay loo di ma ngañ ngañee di ma yel yele di melni ne junjoore xew togaat nga ba melni ne ñamp buñ sanga ba pare togaat ñew jàkkaaroo waat rek man naan njaay loo njaay loo njaay loo duma la moy on rek ah dara nak nono non ma dara loolu naqari sama der ah kon de man na ma togn ba dee lay solution bi. sama mee ñëwul. waay ñëw ne ku la ah ñëw. kay ñëw yàlla na dee. ma ne sax laa defut di. moo ndax du ma kay sama der. oh sama xol bi sax ci man. wu di ma naan doo defati. man xaj. pardon. Duma si lekk te mu ngay lekk ba naan ba sangu ji. loo sonn sonn loo soxor soxor. waa dit rappeur boobu sant bi leen de moom. ñun kott kott def duñu ñaan waxal ma yaay na ma sànni ñaan. ah waa man yii bi muy xew fan laa newoon. maam dolli ñaan rek ma tudd fan. xanaa station bi sax tey waarul na de.

Baba Ndiaye sa pelante dama bëgg nga bind ko tek ko ci oreille bi wala nga yónni mako ma dem baagi joxel la ko waaw. waa nay man sa clip bi ko yoron sen garde-robe mom kan la. defal ma fanti sama boos. ah non fancy ci sa boss ah wa man té mamanu ci internet bi. oh waaye ndok soxna Iman tok na kon ma ngi tok oh les larmes de Fatal Sow mata di am nga loola naqari torop mais noo ngi lepp lépp noona ragal du ko def li kay ragal du ko def risque le sañ sa xana xanaa waaru na tey de ah eh, ma ci sa ndonga s'il te plaît wayal ma xali yi jóg di nani dem na avec sa mag ñi ñom nu ñuy def mag di dem di balu ak ok lo rek la won lolu moy li war ci bis xamna ko man nga daaneel wala ah eh ma ne nga daaneel qualité 2023 gi mom

sama xol bi jeexna xehal sa tangal bi na dug na dug xehal mu dug waaw kay lolo mën am jam am eh ya ah, ki ko gas yaa ci xol bi la ne doje jumnal non non bi yànday mbop yànday mbop capable wo jaay sal bi sax ah moko la gas Yes, I'm yaay sama dëkk keneen dama faaj maandu rek ci korite a gi moo ne daa def ba coiffé de wutal ko benn bant teg ñaw te bien. lu moori feneen am nga. sama Fatou Ngaye de la Fatou Ngaye bi de da nga doon testé leen ma baax na. kii kan la. du ki ma ko teg da ko bàyyi de kii kan la. waaw moom yoo xam def ci kaw boppam bi moom lan la moom. ma xool beneen. ah non non non non non du moom. soo iman moo ne ñaawa de xanaa kay nga fa kay nga daan takk sa bopp bi waree la ko ci xanaa loolu kay ah. xap-xapal moom topp na la ba ca sonoo ba te loom xap-xap nga xap-xapal ba ko nag ah. waa nii la xanaa nag ren moom lu mu gàtt di nga am far. ah maandu rek. ye, yow laay waxal. ah waa madam Kañame lan la war a doy Imane Traoré. dama bëgg nga bàyyi njaay loolu. ah nan lo? du suur comment ça Ndiaye ya Lo pour kan la. pour man la. ii madame Kagne mi lu wax ni Ndiaye Lo man la bëgg. waa Nafi Mbaye tamit buy ñaani jabar man duma taggu ba pare. ci dëkk yu nga nekk. ñàkkul na sa ngona garbu garabu di yaare yaare sa ñaawaay. dëgg yalla madam Kagne rafeto de. kon ginjeeru tak ah kon da ñaaw nga. mo madam Kagne ko pot bari bi nga dajale pour lan la. wa ngi ni dajale na sama juroom benn téeméer ci maam Ndiaye sa wala dem. mam Ndiaye Savon mu jom wala ah madame Kane stade Abdoulaye Wade bee bu ko mam jay Savon jambon sax limo beug nga mel ko do ko mel bar rek yow Ndiaye lo nak yow lay xal wa man ni lutax sama tour wi tak gi oh tak gi si ni la wala si ni oh fi Mbaye yaakaaru mo ne baña nga me ni lo ci wala nga ko ci sama xol bi jeexna ndax Ndiaye lo dama souffrir yow dara souffrir lo la sa ñaaway bi mo lay souffrir lo ci ñent sey jugé na ci ñent sey ak sey bi nga def sa xel muy da ngay tak force waman man paa waxut ba sama digante ki maa ngi nii dem na su bay Modou ah bay Modou Kane yow ni nga def noko mané sajjal na ma. madame Kaña sa sëyi tasoon xanaa bay Modou Kane la ci sama gi wujji wala sa rak wujji ha ni nga def sa yaram mu bàyyi ko ko wanub sareet na so lak barankare waxal rek. oke ok baax na ku jambu sa kanam gi. dem na si na wum oh jambu sa da xana tay waruna ki jël sa kanam gi ba melni aja li nga xamne nak nag man maa jéeg maa ah gis nga madam kaña man ma soo say mbir yow ya, iman tara wala yow nak nga waxal ya nga doog wax ak sa nawale nak ku fotal mbat roccal bar na la liggey ah madam kaña bul sonal sa bop jarul liggey jomalante len yeen ñaar la ku gëna ñaaw sa morom jomal sa morom li nga def saa nga di ah boko re re ku ñaaw nak damaa wagu nga bàyyi sama jëkkër waa kii kuy jëkkëram nag njaay tu pour yow njaay lo da xamna naa ne dugg na ne rubba ma doon ak doom bur ba dugal ko ci ten ba ha njaay lo wa ki du bàyyi sama tur wi

eh mana rob bi daa foq wëlbatikul te doo dégg nag dafa jot waa kii nag lu ko naqari ci mbooloo mi ay gore moo ne am kersa de ndeysaan gak siggal masih ma siggal mak? ma ah mana ne daa jongo ma de ndeysaan ndeysaan moo ne ma ngay yor de ndànk rek ah ñu koy yooxaloo tamit ñu mu xeyna seen wa keur ndax ku ne sa mbokk dawna sa yaram mo yaram cheikh yow momu doko wax mu taxawa taxawal wala hmm, mandu rek mandu rek concentrewul wul rek lu sama yoon sama yoon ci mandu rek jeyno ya, ah moko tudde de sama tour wi lu am ci man onko bi ko mu don lu ma am ci yow dara damay bay laaj waa man xana dama joggi liggéey jàmbur yow njaayloo lu am ci man lo beugati nak dara awma oh, ci yow dara ma ya, mom sa jaar wi rëy di sayoon si oh man kuy génnee samay secret Nafi Mbaye defete nga say liggéey sa yoon nekkul si man walaay madame sama yoon newul ci yow mu yow yaa ngi tàpp sa bopp rek mbaa jaawale sa bopp ak weñ mu sa morom de xanaa mën naa sax tey jombi nag ñetti gërëm faa sabi dina saboote walaay saboote wu ma la yaa def sa ñetti lettre rek ma wax ko jéega waa kii lu muy mel ne ku lump baxal yu tàng di wej weji rek mu sa morom bo bañon ma xas da ngay dem ci le chauffeur mu jaay le chauffeur do sama morom kay ngay melni ron lal man ngay waxal na yow lay waxal waw sama morom eh, madame Unku doy doyna xam léegi wax ma no tudd man la mbeen xana mbeen sax jommi ak asoog ayda oh Madam kanya sa baram yi ngay bajax-bajaxi melna na ay portaari do bako s'il te plaît madam kanya su la gis news la numay def d'accord madam kanya, ko yorel yoreel fay ko ko la yorel déclarer mu fay la damay ñëw news la ma ngi ñëw naag yow ñëwatuma sax baax ki jàkkaaru face à face ay madame onk damaa ñëwut yow moom fekkee wéet bi yow nga xam yow lépp dëgg la yow sama tur dafa nekk en promo ni def noo man lu ma defati xam na ci kaw ci suuf mënuma ko ndax xàmmeewu ma sa kaw ak sa suuf déet bul wëndeelu kat nag ngay mel ne ah wëndeelu bi doy waxal kan sa soxla biiñ beeg bi ñaarte bi ngay bax te nga wax ma lu la def lu ma def. lan ngay ñëwé sama kër. ii xana kon kër sax tay jommi na. wax ak man. waa kii li muy bajax ni di melni yow mi ñi togg ni yamal da nga wax. man ndar ndar bi ah amad Fall Baraye mi nekk ndar rogatil sa waa ñi kan nak ah. ba ma nangu doon sa takko. ah no def ak man mi bëggul nga doon sama takko nak xulliku bi da ngay ba ngay mel loy mu jël premier ni wax sa soxla rek moto na ndio wejinde ha te kartal nga fa sa bop place ba tok de ay comme soit disant xana degol sax jomé na de ndaysan français ku jug wax madame kagna bu dé madame kagna ngay madame brouette ño xamantene gis nga sax lim seen tour xolo mën ta and ak ah wax sa soxla nak yow nak ngay melam cantine ni xam lu tuti ta bari wu la oh nabi mbay amati nga ndam sama kaw de yow njaay lo ma ngi gëm ni nak sama jëm ji dafa nek en promo ku jug rek ciap ku jug ciap baax j'ai fait mes valises. valise ëpp na ci say bagages ndax bari woo wutal mbuus. j'ai ramassé mes clics et mes claques. du li nga solde xanaa li nga solde bokk direction ce site. xeeb français doole ci anglais baax na. wax. ah man xana nak waa Ndar sax seetaanuñu ma yeen waa du ngeen wax ak seen ki wax leen. boy xef dima gis seen buntu kër. ndokk ma dul xefati sax li dess sama dunduma xef. seyk bu nga muy am lay doon. demee na non wëndeelul ma xool la ba eh, ay gore xool kook tarsi fonkal laax dama ca nogoy loo mu jaay la fonde ndeysaan salaamaaleykum waa madame Kañemi kan lay nuyu waa Sénégal waa Sénégal Sénégal lan moo tax ko jóg rek yab leen teel na de waxa sa soxla rek man la moo doon doos waaye kii ku sant loo ku ko takk Serigne Ndiaye Lo ma ii man maa leen di nuyu waaye fayuñu la maa ngi leen di yëgal nag Ndiaye Lo takk na Waman kan mau force madam kanya mi? Dia mau di mas. Wazur di masak mau kan mau kasak. Nas may lagi no may suruh jake. Cur jam betu mon li lagi yang fi mbay lah. Nas kontan na. Kurende anda ndon de njekel ci lagi jege. Na fi mbay yaama def ni. Do Terang. Karena teranga terlalu indah walau rakal kanya mau gerte ak rakal lagi. Bari na. Ñay ya, no Baik sama turwi. wi na Lidah xel li sama adun sama xel dootu ci dal naa saya sëy rafet Karena sëy sax waaru na tey Okay, ay bain guys eh. Dinañu mur nak. Wa, yow buñ la muuré fo jëm? Kër ñoo na fi mbay la ñëw. Alhamdullilah, deug la na may bu dé mo tak rek ci mom. Oh, semaine. Da di Ii, mur waat jëm fan? Ñëw Touba. Touba. Sortib xombal bi da ngay romb sa bañi lonké fa. Nga dess fa ben yoon nak ñu def le monument di la siaré. Ah, wa madam kañu mi nak lu ko téré dem marché asalam nak sét ba de sofa mu defal ko ci sofa yu baxi. Li mom japp la mom, xoli benen. Ya, oh madame Kane s'il sama tur doo ko bàyyi. war ngaa sant yàlla. ah yàlla mi naan ñaan leen ma ma may leen mu nga sant leen ma ma dolli leen lii de ñaanuma ko moom wax dëgg yàlla ah. nga amee jawar ji ma. madame Kane xam. ndax yow léegi noo mel. mel naa nu ma neex. waa ndok mel nga ni nga neex mais meloo ni ma neex man. jar naa ay milliards. boo yoree milliards nga buddi sa bañ yooyu monté waat yeneen. taxaw taxaw. waa man fu ma taxaw jëm. Zouye Ndiaye loo. ii bébé kan. jëlee sama forme. Eh, yàlla tere forme.

موي Ha eh, yéen iya ñi taxaw kiwa wax leen ko sana Sénégal mana fi. eh madam, fecc mi mana fi Bar barke Bantu Mbacke nit ku ñoo bon taxaw ne ŋaññi di ko Ha? Ha? Mama aja apa xanaa gisoo lii. baax na soppil pecc mi soppil xoola beneen fecc. déet bii romb bu yàgg ah déet waaye itam nag biit amatul fecc bi romb na wa man pour nga xamni maire yi nek Europe ñoo fi dal deug deug dëgg macha allah sama yaay yu bax seenu daanel daaneel rek daanel bi bu la raw mané ko yaay boy li nga fecc ni yaakar na 96 la won ba léegi cey mama jaata yaa ngi seetaan de waxal ak ñi ah xeyna sama yaay ji soña bu doon moom tamit ah pour ngeen xamni feccum Europe ni ma leen ko waxee woon maire mooy seen daaneel ñu dem xool beneen ciy titi laa lion borom wayu neex wi saison bi am na gande ñu defaraat toogaay yi te xool sama xarit bi nu muy daaneele <laughs> ah, yaay booy jox ma dernier daaneel bi rek ma dem ak moom jëkkëram benn jeg dinaaw ma rek ma dem Yen yi nga xamne nak nag da ngeen tamu taamu di jouer bet utiliser len sama code promo njay 21 tout en majuscule lien bi mi ngi sama bio TikTok jaaral fofu nga télécharger sa application bi def sa premier dépôt mo may la 156 francs de bonus. tay nak ah mo sama yaay ji lu ko naqari tay nak ba jam la. dama genn pour casse sama droit. waaw maman Dia tamit ku ko togn ta xamna ne nag am droit casse sama droit. Eh, xana droit sax waaru nak am nga droit kay. ndax dama gis ne waman mama jaate lu ko metti xale jamono ji ah moo xale lu ngeen def lu xale yi def topp nañ njaay loo njaay loo trop sonnoon njaay loo mom. naa moom fu gauche njaay loo droite njaay loo ci diggante bi tamit kay muus génn waaw man lu mu man wax sip kañe génn na cum loolu madame kaña moo ko moom madame kaña ba ma na eh buki bi nag mooy porteuse de voix kooku demal la kuñ sol ba soli ko Imane Traoré. gaynde genn na. ah yéen waa Ndar gaynde gi Ndar la dekk de téeleen ko mooy kooku nekk Ndar rek di neewee Grèce mel na ko war na baax. ngir yalla oh yaram dawna na. bu dee ba ma jatt di len ko ñaan ci man ma yaayu Ndiaye Lo. si si mama waxal. man ma mayewul sama dom. xana nak lolu jeexna nak mayewuma man mayewuma sama sama pamtu watal ne len ko mayewul domam xana di ngeen bàyyi sama dom tranquille bu nu amee jom dana ma bare. ay waay dimbal leen sama doom ji. oh sama xol bi jeex na. sonal ngeen ko de. si si son naa moom. fu ne nag yéen a koy toll tollee rek. damaa xam ne kat nen bu ñu war a baxal ñu om la ko ku ne ñëw di jàpp di yóbbu ah. rek di di jàmb ma doy na nag. cum waaw ah, waaw doy na de. ngeen bàyyi jàmbur. da ngeen may bàyyi kay ma bu ñu ma bàyyiwut nooy def. sinon rek bi yéen suma ma génnaatee rek dinaa dal seen kaw. ba nga waree dal seen kaw moo yàgg ñii. ah madame Kaña. précisément madame Kaña yow rek lañ ci ràññeel ba ma. bàyyi sama doom ah. maye woo ma tey. maye ma ko maye ma ko tey. waaw waaw maye woo ma ëllëg. maye ma ko ëllëg sama doom ji dama koy wutal. macha allah law la jot ci man mama loo may wutal. a ah, uru ay ni. cum uru ay ni waay ndax uru ay ni sax jug nañ de. uru ay ni yaa ngi waaj a génn nag am na ñeneen ñuy ñëw. na ñëpp ñëw. maye ma ko Ndiaye Lo oui mama. bul sëyee kenn. na sa xel dal mbokk muy sëy sax aw Deglu ma. Jappal na ni yow rek laay déglu. may sa yaay. jeex na. bul dé deglu, bul déglu kenn man rek ngay déglu. yow rek laay topp. yow Ndiaye Lo. waa kii du bàyyi sama tur wi. xanaa xamu ne man dama laa bëgg. bëgg man xanaa dama am contrat mbëggeel. xanaa xamu ne man dama laa bëgg. sa ta ta ta di nga tax mbëggeel tiit sax li nga bëgg rek la bëgg xam. dama bëgg na. ubal sa jaal wi melni ay kaa nga wax ma li nga bëgg. dama bëgg na. yow loy layam layam ni waxal. nga fekk ma wér. 28 29 sax dama fa ñëw. léegi ñu génn. mu naan ñu génn wala ñu dugg kay. wa man ki kan la wara a ki kan lay waxal ñu génn. ma gi yow. wa man ban sa faral la sa go suñu génnal leer na. Eh, way madam Unku may ma sama jamm dara leer. dama bëgg nga fekk ma wér. wa ki ban problème la am ak 28 fekk ma 28 moy lan sama xol bi jeex na. maa yow legi ñu génn. moom waay kii ban problème la am ak génn. maa ba ñu génn. xayna waxut ak man yak na génn. ma ak yow. wa man ban police moo ma gën a ma dem porte plainte na fi mbay mi. sama problème du lol de. mbeen buma la jëlone fi ni ne nii ban restaurant lay yobbu sëñ Basi Abdou Khadir. restaurant sëñ Basiirou Abdou Khadir. la bëgg. baax na moom nga bëgg. ñu dem fa. buñ fa démé ma ak yow. oh ma ak yow. yow ñu réer. ah ñu réer am nga réeram sanke na sankina sairu nayi konde sanke sax waru na tayre sayu nayi la sanke sankina taxaw di la xaar ma gën a naqari mooy Nafi Mbaye day affiché indien di dawal ka boy sanke na lu am jom ah mbeen lu am jom li nga sañ sa wëndeelul ma xol ko wa bëgg na ñu yam reeri ah reeri mom du lay mëna a nekk heure eh, bi mom xam nga lu ma bëgg nga dem aslem 5 fete ba de sofa mu defal la sofo yu baax nga ñëw ñu ànd waaw dama bëgg na ñu yom reeri waa kii xanaa daa mi ngi insta ci reer bi rek soo bëggee. Semua bagai. sa maam Ndiaye Savon. maam Ndiaye Savon. mu jàmb ma. la jox ndigal risque boobu du ko jël ngay dem di diital waa Pikine rek. ok madame Onko léegi loo bëgg. bandil ma ii lan fon. ma alifon. alifon ok ak lan. ak 500000. 500000 maanaam téeméeri junni wàññi sa loxo ñetti téeméer boo bëggee. ak soo ko bëggee. Eh, Onko yow war wax Nak Nafi bay, awal ma ñetti téeméer fofu reetaan ji ngay bàyyi nangoogu ma dé légui suma défé lolu ñu sey ni neex ma ak yow. wa man madame onku mi xana problème sey la am nak ah. def ba ci koñ bi. d'accord ñu def bës fexeel bu vittu daal waxi réré dégg nga. neex. mu na neex. ñu kuupale. kuupale xanaa kuupale sax jommi tay kon ah. suñ kuupalee def neex. waxal Njaay lu mu la jaral. ii Njaay man. waa mbeen mi lu ko kan Njaay jaral. Bye bye. I, bye yai. Aj. Kon da aj sax wàcc na liggéey. Ajum jam. jam. waay why? sora yi bu leen reem Chase Cey waa sora. Okay legi waa sora dama bëgg ngeen tacc mbeen mu wayal ma. Jaay la. man ki lan la ko wara jaral. ay gore ma nga te ko tali bye. man fu la am taxaw mbedd soray nan jaral nako bye yaay ak bye. Ha? Oh. liggéeyu jàmbur bi ma sangoo. man Mama Diar loolu tax nit ñi tegu ko teguñu ko fenn dia mu menacé xale yi dem yëpp pareeguñ ci man lii Mama Sonia foog mu wax si. mbeen ngay musóor mbeen loo bëgg wax. jaay ma sa ah soppeeku gën a gaaw ma kii lu mel ne ñànkatañ buy sóor ni yow ya, soppeeku nga leen. Eh, baaree ji lu tax nga ne du ma sa moroom. ay gore xanaa mag sax waaru na tey Oh. ah dóore bi nag ngay baax dégg nga bul jaawale sa bopp ak weñ et puis tu te prends pour qui yow la kan. waa kii li mel ne ko war na war a gor jàmbur nii di xaj xaj. doo sama moroom d' accord. lépp laay yow lépp laay topp. qu' est ce qui se passe lu tax ku jug ne ma yow laay topp. man jaay ah, sam xel leer na may ne Nafi moo la koy xelal pour bëgga a jaare samay sentimental naan ko ay du ma sa morom faalewu ma leen. Mbène jëlal lépp yaa mag. ay man du ma sama waaki tay lan la jale duma sa morom ni men ya, ya, ya. yow est-ce am nga ñu lay top man lan lay top xalé goor man ay way goor xalé goor ñoo bëgg lu won ku ñu top yow ak ñoo baadoo la waa sura ñoo japp mbenn mi rangante ko ah ay goor xol ko ma ngay mel ne pont miir de ba len ki ngeen ni rangati nak yeen tamit yeen ñi nga xamne nak da ngeen di faral di jouer OneXBet utiliser len suma code promo Ndiaye 21 tout a majuscule lien mi ngi sama bio TikTok jaara foofu nga inscrire def sa première dépôt ma may la cent cinquante six mille francs de bonus. aw. Oh! yow Ndiaye Lo. ah waaw madame Kaña mi tey lu ko naqari. sa waa ji sedd na de. yow mi ma tuddee madame Kaña. ay gore ndeysaan. tur wi de du sens mérite la. tooñ nga ma amee nga ma àq. waaw lu xew. ndax ma génn ci mbedd mi. waaw man damay waaru wala. ana Kaña génn. léegi. damay bëgg a jooy mu wala Kaña guddi la daan génn ana Kaña génn ba cëg. xale dañuy toxanoo yuuxoo na deew kaña la lay rey tëj sa bopp bi la ñuy def kaña du génn bëccëg xale dañ lay yuuxoo waaw naan naa madam kaña madam kaña ah law la jat yàlla ci ay tur yu bari topp ndeysaan du sens mérite la madam kaña te lépp yaa ko teg madam kaña déedéet yaa ko teg sa bopp yaa ma affronté waaw gàddu nga ak rëy na yaa ma gën a ak ne kuy wër di këpp ndogu yow mi njëkk a dugg ci man jaxase sama biir mënuma am jàmm ak madam kaña xam nga Iman Traoré mënoo leen ma bàyyi ak wax Iman Traoré ah doon na la pelante mooy. ay gore moom pelante moom ñàkk na valeur di léegi ku rek na pelante. man nag di forcé naa sama frère. kañ ak pelante. ah. waaye nag dama lay tëj. ma ko tëj xanaa tëj sax waaru na kon. dama noo def bu góob ba pare. déet yaa dem kompoloog Nafi mbay ngeen àndandoo ñëw ne yee yaay may may sa bopp jëlal. guutal ma xas si dëgg bi. dama laa mooy sax. loolu ci xool Nafi Mbaye. do ci xol nak mbay ke ndax yeen ñaar yeen ko and leer na ma ne pelante bobu mo la ko digal. do ci xol Pape Diouf. ndok Pape Diouf dalaa naroon a gennel son way la comme que demee na non nañ ko bay rattale ci kasso yi. waaw ah, xana da am benen ndungu seen bu am bu bokut ak ndungu seen bi may deg nak wax dëgg yàlla. kaña gi dana am autorisation. kay. da yaari bëñ yi di mel ne radu bu jaxan sa kaddu gu mujj lan la. tout court. oh madame kaña ya ñak sans dor war gam sa bopp Cheikh Dekko mi nga xamne lu mu wul baxul bas yu rafet bi wo sonorisation yu bax yi nga xamne tubarkal tubaarkàll préparé woon naa pour mu langal la nga may plante ok. salut mes amis. xaar hmm, ma tak sama wer may ba man la ton oui soxna si ça va. tay mom wa ki mom xam na daldi tay mom dama damaa pour waxtaan ak yeen ay gore ndaysan ñoo lay lay déglu. Euh, madame. nabar nabar. ndax dafa am ku ma bëgg. bëgg. ma bëgg ci partager ko ak yeen ah partager bismillah. Ah, madame attends buñ ko partagé yow après loo bëgg ñu def ko. ngeen validé sama diggante man ak moom. ci kaw mu nekk diggante bu validable. waaw. sigil te da ko bëgg. waaw. ok kan la. bu ma kenn jugé. incha allah kenn du la jugé. madame est-ce doo baral nga wax ñu kan la. parce que l'âge ne compte pas. dama bëgg. lii da lañ doon xaar. koo bëgg. Ndiaye Lo. man xana teman laal di garabu jàmbur xol ma te nga wat ilahi ah yalla sax ci wacc ji madame Seguel nga ya, répété wat ko dama bëgg njaay d'accord da nga bëgg njaay alors légui lo bëgg ñu def ko te dama bëgg ngeen valider sama diggante ah, madame sa digënté kan lañu valider fofu man ak njaay loo njaay loo waaw man Nafi Mbaye mi lan la ko def nak waaw ah madame loolu nga foog ne wal na man na ne de ah. mais madam gisoo ne rangi daa gudd lool est-ce que gis nga xale yi may tendance. xale yu koy tendance fan yi bilaay maa leen gën a jekk. xanaa jekk sax waaru na de ma xool la. Njaay. waaw waaw waaw. waa man sax laajaguma la sa tur ba tey. ah ana man la Maggy Lastar. ok Maggy Lastar léegi da ngay bàyyi ma waxtaan ak mama Diatta ak mama Sonia dinaa revenir. madame sama laaj bu mujj maanaam sa sañ sa biig sa lunette yi allah lu ko waral. bëgg la rek love. I love you too merci beaucoup kontaan naa sama xol sedd na si yow bégg naa kontaan naa vraiment lii ko ah aku aja sa bopp man mu ah jaral la temps bi yëpp vraiment merci beaucoup sama star bi sama fans bi yow man dama lay topp depuis ay année année maa lay topp maa lay merci beaucoup sama xol sedd na si vraiment. yow ah ben man la madame Kaña mii di doma dug ngaregla sam fek da nga yemale ya ko baar mbay i baara mbay ndax njaay loo du pour yow waa man ñii luñ may ngal ngalee rek pour kan la eh, madame kañang maram unku ñang may xëccoo laay laay li la xas ko may wax nga ne sàññak sa kanam gu gajaf woow ma ne ko géej dama ngay xas yéen ca xasawaay madame da ngay bëgg ngeen def ak kan sax na de kon naan man day xëccoo man madame Kaña dimbali <laughs> ma loolu moo la naqari ci mbedd waaw Lo ma xamul bu ko yaayam di boot. Eh, kii kañ lañ di boot yow. maay dagg mboot. mboot mi koy jël nga koy dagg boo ko ŋànkee rek mu dagg sa daba yi. ndax Lo. kii kan moo ko sama turu. loo ko bëgg ba mu bu góomee rek dañ ma na fi ma ko xale. say tànk rinki ay tànkam rinki ak lan.

la ilaha illallah ngeen man ngay defante madam kaña maynu ngay melni kuñ sul ba ko ni man mi nga xamne dama am jox madam kaña ndax man na ma xam luy sa liggéey ne sama saxaw lay tak diko jaay mu sukk mu fukk madam kaña ndax man na ma xam fi ngay jaay ci areba ah wa arebe nak bëgguñu lu bon nak wax deug yalla ñaata ngay am bénéfice par journée chaque jour na ci am bénéfice juroom fukk dama bëgg nga dem lel ci sa bayleen bayleen kan jaay Ih, njaay lo. Njaay lo. Ah, wa pël bi doom du bàyyi sama tur wee. lo mala no. Ma ne ko no bi jàmm. lay takk. wàññi lu tax ñu yombal takk nag. dama bàyyi kaña. kaña yi. ak jinne ak. oh ak jinne yi. Ali. àll yi. ak mbaamu àll yi waaw. dinaa ñëw ba Touba. waaw man pël bi ku ko dugal ci samay mbir ba muy ñëw ba Touba loo fi wut. la. seet si ndok man Bambey laa dëkk. déet dóoru bi ngay bàyyi nag yaram pël dëgërul de léegi bo ñëwee. nga tak mo mané ko tak xana ko tak sax war na way ñu tax ñu yombal tak way ah madame pel yow pel nga wala da ngay pelantu man Pël pir faké pel pir léegi. ko bu yaa ya ba ci ko ba ah désolé mënu ma la xol ko ba suuf ndax xamé ma sa kaw sa suuf. maanaam jom mom ba énervé. jom ma sax war na de ngay xap xapal di mel ko wan waru garu jambour ni eh. une petite sourire ma xool kii kan lo la khawla wala khawata illa bila ali azim Dit, kii mi ngi tërëf di mu way kan lo ngay waxal ni Baik, sama turwi. wi na nga def da jom ak man ah waki kii xanaa ci milieu bi la eh xul li ma fii laa la wax nga wax ma li may ngay mel nag seggu nii waxal lan la eh namu ne geski daan kan la waman ki lu muy jartude mel ne ke cewek ci Aja. nii waa man ci lan laa duggati nii Nafi Mbaye ci lan la ma dugalati nii jam? ci jàmm Njaay jàmm kay sama jam kay ñag jeex na tàkk wax dëgg yàlla ah maara di itaali jalo waman nak nak wax dëgg Kini kii mi duga may dugal mau kau koo gis yow ya, aku malah la gis oh, man du man du man du man sama tur wi lan ke koy yóbbu ñii teetee lu muy tey tey nii nii moom it nag wax dëgg yàlla. bëgg. ah bëgg sax waaru na. waaye looy kayang kayang ngi nii lan la. yaam yaam. xam oh, aw ma jàmm kay nu may amee jàmm nag wax dëgg yàlla nga ne jadd na nga ñama naa ma yaa ngi am jàmm tax. Ndiago. Oh, ay waay imaam bu may dat sensé sama tur wi ah. mbokk ma la bëgg aw ma ko laa la wax. nga mel satala nii xam. kii li muy réer rek feeñ di mel na fokk yu ñaar bokk ni. lan ma la ah. waat naa ko ci ki may bëgg a waat ndax mbay ku lay tee fanaan police tey yàlla bind ko sax. man kañ a yeeg jirax yi man lijjantiwu ma leen. effectivement leen kay ndax yow dara saf la. Hmm, bul déplacé wu bul ñëw de foofu wax sa soxla rek. man kii laa. Euh, ngay mel ne ko war na poto làmp ah, question boobu laal doon bëgg laaj sax. soxna si Lodon. doon. rabu Al. rabu Al. ah bisa bi sax ñemewu la. mu ne tiw lan. ah tem kan tem kan. man association milieu ki leen jiite doo ma jox numéro nak wax dëgg Lo. ah bal sama turui. wi. am nga problème. désormais tuddatuma Ndiaye Lo sax problème lah tudd. Ada orang ram kaala. ci lu muy làmbatu xamul man. Saya mengajar. Yow, madam, mana namaa xam kañ nga gëj a ragoo. jaalo. madam bu rep yow loo may tuddaatee nag doy na. yaa am jàmm. fu may jëlee jàmm nag laa xamul nag wax ah. Hmm. bagian maa ndikat du metti ñaar bi del som suma laa lay jëndal bala nga tofli ba sa yaram ne lab ma dem bala fa yaar man ngaa wàññeeku ma xool laa. ngay mel ni ñëw sa solo gu bari man na xam ki la solo la. li na eh xam mana yang nga jóge fii nga Darah li ma sañse dara safuma ci neexuma ah yow mi mandikat sax daawul sañse nga solo nii ba mel na suppame sa sañse bi tey lu ko waral tey suñu jouru mariage la ma ii lan yaas waa ku repp kuy sëy ak mandikat yaay loo eh sorry ma laa la wax ngeen mel na nit nii dandul tengah nga wax sa soxla mbokk mu ma neex sax amu ko xooluma eh xam nga lu ma xamal nga wëlbatikuwaat na nga taxawee woon yow sa kus gi di mel ay daali marakees nga naan tournée mun ta gaaw ci sa bi yow madame Mandikat sa dernier mot lan la ma na xel xel ah mi ngi noonu kon yéen ñi nga xam ne nag da ngeen a dëkkee si diwaan Touba ak li ko wër ak fépp foo mënti nekk ci Sénégal partout dans le monde sax laay wax seen jaaxle jeex na ci lu jëm ci seen wàllu po seen wàllu yaxam ak lépp lu nga xamante ni bii rek da ngeen koy soxla ci seen yaram góor Gora cosmétique ñëw na wàccal na leen yooyu yëpp neen leen tubaarkàlla boo amee ay pëcc wala la nga ñuul bëgg mu gën a ñuul wala nga xees bëgg mu gën a xees wala ay taas ak ay yeneen ak di nekk ci sa yaram wi jeex na désormais Gora cosmétique saafaraal na la loolu mi ngi Touba marché Ocass incha allahu rabbi numéro téléphone yi moo nekk numéro yi ñu leen affiché foo leen ko woo dina leen fa wuyu boo leen am moo ci gaaw tubarkàlla yéen a kadam yooyu noonu boo leen deflante ak moom incha allahu rabbi am na produit yu baax yu efficace yoo xam ne bis bu leen ko këfinalee rek ba ngeen lëfin ko bu soobee yàlla seen jaaxle dina jeex te seen naqar dina leen dëdd foo leen ree neex ngeen am tubarkàlla macha su ma loolu may wara ñom ñaar seen digënté lan mo ci dox la bëgg xam digënté ñay Lo ak ah li xajalé sa ak mandu ci li so yoon wut mo dugg sama ak mom. fenn nga ba sa gimin gi ak sa noppi sore fi mu ne nii ku doon joggé sa gimin gi jëm ci sa noppi day pass wala mu dox ay fan yu bari bari doora aksi sa alam bay patinois góor du seytaan góor du fumiste góor du lu sa yoon wut man nga kàcc man nga fenn te dox deug yaa ngi nii di fenn nak bo maytu di nga fenn ba ñuul mandu ci say faal ma ngay sey ab seyem sama xarit la sama rakk lolu sa alam bay patino dama guddi nak te fi mu ne nii damaa war tontu ma la

way ki mel ko war na ne sol ak ni man buy neex du ma doyal ma naan neex yow balaa neex ñu tëj la mais yaa gis bindal sa pelante jox ma ko la wax wala nga woo sa entourage ñu bind ko ma yóbbu nga ne xàjj di mel na ku rab ni wayal rek lu mel ni man wëral ka lay wër na dee daw ba mel ni évasé waa yi muy saam abranos mu koy indi ko damal sa bop rek ngeen kuñ palater ba bàyyi ko nii cam banana oh sama bi ah, madam sa premier non boo war xolal ñaar ñooñu di la tàcc ñooñu nekk sa wet di melni ay sami mango bëgg ñu la sewal sa bët yi réel sa gémmiñ gi bët yi maay xaar nak ba nga wax fi sama sourire mo upp nangam nangam sama sourire mo upp ko moo ëpp i yow nga xamne fo fooree djublu fo bu nawetee du taw nga nan may njam regleel nga melni ci cere gor moñ ni nekkal nit ndeysaan ay gore xol ko feeling bi ndaysan malheureusement rose bi nga sol do nga and ak way wi de lépp jërul taal loxo nag di mel ne ko wann sa waru goru mag namuñu la wala loo def mu naqari kay les larmes de Meya Guissé loo def ay gore ñi sant Guissé ñëpp a ngi jooy Pendo Guissé Demba gise waa gise jooy leen jar na jooy de naawal nag naawal rek moo la dese nag ay gore pooj baa ngi yel ba de la xamewut ndeysaan lii da leen naan pooj buñ demee ba koy jaawaleeg yel du condition jàngoro la ah hé xam ngay mel ne si ngom balbasik na muñu la ah Meya Guissé mi kañ lay bàyyi noo def mu ne masalla yen ñi nga xamne da ngeen soxla lu jëm ci seen walu po manam ci seen der désormais góor cosmétique ñewna ñewna ak yeen te fim gënne ak yeen mo bax ndax indil na leen ay produits yo xamne bu nekké da nga bëgg défar sa yaram sans mu am effet secondaire manam yoy non diko yaq ak yoy yëpp da ngay ñew ci góor cosmétique affiche bi numéro bi nga ci seen moy numéro nga woo ko mi ngi Touba marché Ocass fep fo nek li nga bëgg dina la fekk dina la ko livrer boko messager whatsapp bala nga jënd dina la expliquer wax la li nga bëgg ak lo ci bëgg boko jotante ak mom rek lepp li nga bëgg di nga faju sa aaji bu soob yalla jot leen goor cosmétique seen faju ngeen xap dund sama uh, classe nga xamne nak suñu bëñ ni dafa xawa a amna ay mbir yi nga xamne day defar bëñ waaw ni uh, reej neex machallah dal daal joxoo la mu waay jommi da amul heure. dama bugg nag nga def sa bop ap nit. ha yow do nuyo bala ngay wax dara. ma yow xom nga di. kii de kon ken kayere manke wo dara. te kan li ma la wax. Ah, ki kan lay waxal. demb ba léegi nak maa lay wo ci telephone risque la kay ragal dula wuyu. ki kan lay waxal. di nangu woo maa jël. maar de yim si kii ku muy wër dañ ma abal téléphone bi nga xamné ne téléphone bu mag la. goré téléphone da waru na kon. waaw. sooy jaxaso yi nga nan waw lan la. téléphone bi dañ mako abal. deug la xamna ni ñi defal téléphone ñom ñepp nga joy ah. ma ngi wax ni di gis sama bop ni gisoo sa bop de da nga nan rabak rabak nga gisante. lolu sax de sama yo neeku ci ki kan lay wër te Ndiaye Lo. i. Ndiaye Lo. nga yow bo dof dof lu wul. menacer dama lay jël fi yobul la dekk bu waki nak kan kañ la ma yab nag dëkk ban. ñu toog foofu dootoo ñëw Dakar. ndok man samay bari won Ndakaaru sax. ndax fi ma nek ni wa man ki lan la may rëbbee nii. damaa fas yéene ak yow. toog ak kan wutal keneen mu ñetteel ñu kon. fii Dakar. ah yow nga ni ma lan kar nak wax dëgg yalla wa Dakar mom lan motax lu way jiw rek bolé ko ci. dama togut ak yow Dakar la wax. wala ñu dem dekk ba. xam toguma Dakar dem ma dekk ba. fi mu nekk nii yow kay dotuma la bay fi nga nek wa man mbaadu na fi mbay mo muru soppiku ni di wax ak man wala ci xale jigen ni ñu lay doxaan ndokk man ma leen doxaan ma tay yow doxaanoo jigen ni wa man kuy génnee sama secret doxaanuma jigéen ñi léegi jigéen ñi ñoo lay doxaan amatuma nattable na man dama nek en promo yaay noppi de yaangi na ne di mel sombi keccax waxal rek legi xam nga nu ñuy def ah, legi nu ñuy def man dang may sul lolu kay noppi nga mako wax ñaar yoon ma lay sul ba damu ca pel ba ma sul la ii sul kan ta du demee non sax ok bu demewul non nan lay demee man ma lay sul Wakil lan motax mu bëgg ab suul ak sul yow lu tax nga may suul ndax yow suma la suulee yow mënoo wax say wax te genn ci waxi suul baye def ci dëkk bi da nga nekk doon man mbaa ya ana moy genn di yénne samay wax ya ana mbay sañul loolu ta dama ñu nak fii yow do neex sayel ndax amoy matériel gis nga samay bagage way yow lay melni kuy togum rew ni buki yek oh buki yek kanya yek ah, madame kanya woyul lekk yek dama bëgg gis nga mburu నా es మక్రోని paya బాంగిని kii mbaaru jaawale toggaale boppam togal bopam cin nii bool baa ngi nii ah mbokki ko amel bar ci man indil ma fay mako ko ma amel bar wax mako mu fay lako ndax ki bu bare man mi damay togal inshallah allah dama ko def pour man ak yow dong jom nga de man ak yow dong kese du fi amé na mbay fo ñu togalé la ndax luma ma dal yaa ko dañ lay togalé wa toril écran bi sa kanam gi Sofia daf ma waxoon suma ii Cem ngay xolé ko ka nga di melni ko warax afrique ni sama ni mama jatt be bo nga genn wax de kii rab la de man li ma jaaxal sama ko diwe ci sama bët rek sama bët yi day xiddi jooy rek joyo go sax nim ni nii nga koy diw ci bet ok moo ma jaaxal yow mi do arrêté li ngay diw sa yi nga lonk sa nopi di melni ay pneu auto yow ma do pneu auto dam daam yi wër ya ko jël def ko sa nopi gis na gis na lepp kay waye fo jaar cheikh na lum dina la jël si damaa jonguma ba yakku Eh, ay gore xanaa jongama sax waaroon na rek. kaña yeeg. kii du bàyyi madame kañ. bukki yeeg muus yi yëpp laa bugg ñu toog ñu lem seen génn. bukki yeek muus yi yéen ñëpp lem leen seen génn ñu toog toog nañ waaw léegi. Mm. déet bul nañu moom moom làkkal séeréer. garaam xaye kaam doloki ndooy ne. ah sama mbokk séeréer yi jàppale leen ma ci lii waay. koy bugaami ni o ànd ak kooku. ii noqi jàmm. nit day xam boppam. yow mi da xamoo sa bopp ndax ñàkk xam sa bopp weesuwul nga gis 4 4 di la nga cëm. nit day xam boppam. nga nit day xam boppam. waaw. léegi lu tax nga wax ko. jàmm rek kay mën a am. waa jàmm lu koy indi. maag yow ñu toog fi. toog ak kan ngay mel ne përngalu saa buy waaj a jeex naan toog. toogu ma léegi su ma toogut ak yow nag. jàmm mënuñu ko am. jàppal na fu jàmm yenduwul du fa fanaan kon waaw. non man ak yow ñu dellu dëkk ba. eh xam bëgg nga waxee dëkk ba trop dañ faa jóge woon ba fay dellu. dafa

a ah, Samat dama ni koo sa sañse bi. Eh, jaru ko gis naa ko gis naa ko kay sañse nga moom. ndax walaay. neexuma deret. neexoo deret moom tey moom da ngaa tànk. ah yaaram ma ne gis naa ko sañse nga moom. waaw man sa sañse bi nag ku ko waral. ndax man. yaa ma sañse lii. Ah, kon de sañse waaru na waatal. ndax walaay. ay ca mi ngi non tubarkalla neena len sen jaxla jaxna sen na jaxna waye nak li ngeen doon lank bagn ko faj leg ki len koy fajal ñewna kan la ne babakar borom crème capillaire ki nga xamanteni bi tubarkalla bopp bu amul karaw mo ca ay waye lel bu sori tamit ba mel na lampob sa demé mo ca ay kan du mom ki nga xamne bu la jaayé ci produit yi tubarkalla boo ko jours 3 jours nga gis sa bobu commencé jabat tubarkalla ngay melni ku sa tool nangu te ki ne babakar mo fa jaar borom crème capillaire ki nga xamanteni bi produit yu bax yi mo koy jaay waye nak li nga xamne dang koy def sa karaw muy sa karaw di may karaw di ko sëqal di ko gën di ko numéro baa ngi noonu jampur jàmbur boo xam fa ñëwee ah tout temps da ngeen def ci ci mi lan ah na ngeen def yéen a ngi ci jàmm basket lan man du ma basketeur Is Ndiaye Lo Ndiaye Lo mu si mbekk soxna ii daru Salaam la naagal nga daa wax deug yalla kan kaana laay laaj te kan création dara jollof nak xam nga ñëw fi waxtaan fe yi lan manaraf ñi daa mel ne ay naar lañ de daanag ya taf taf ya dem da e max ko la nak fa ñaal ci cine la waxuma ak ci man ya taf taf wa taf waa daal laa ñii na na ru ba ma don fogg do bo ko jus ko ca nak nar ci da ha ci da sax dama doon laajte waaye. intimise noonu ii wuyu ma nag comme que waxuma bul wax yaa ngi dégg bu ma waxul rek dimbali ma ci nag bul wax. si daal maa ngi tënk seen xol lan si daawoon fan. si door yi dooguma. xoolal nag ñus leen fa laay mujjee yéen ñaar ah léegi maa ngi doon laaj laajatuma leen. rek si leen ngeen mel ne ay saami mango seen xonkaay cëm. waa kii moom foqale na de. Ah, xam naa ne mën ngaa lekk de moom. eh wax leen nag doo leen wax. yàlla na lan gaal yow yàlla na ko yàlla jox fan. yàlla nga ko ndogoo nii. ndogu kii fu muy ndogoo. palais. Ah, xanaa daa am beneen palais bu am ki ban palais lay wax ak kañ la ko foora ndogoo. 2024. 2024. du am. incha allah. waaw moom du wax ah. day wan rek. ci barke. amut ah, ndax man na maa xam yaay kan ci ku njëg politique yi. Top ñu kenn. Top leen kenn léegi ku ngeen top ne yaw rek la hmm, top top sax waru ya na de a xam. top waaye yow man nga yéey de ah. yaw rek la. Tahan termalah. ko dong mi ci sax mi gi Buku. ngi yéey rek ta yabbe go ba tay de tantar mala da am bu ci biir bu ko Cheikh da ak ay rek. neexi re dong la ñu bëgg. ah kon de xel man na dal neexi re ci di lek de neexute ree kon xëy da am ko mi waxal ci mbolo mi du bëggu ñu kenn yi ngeen bëgg dina am problème mu lekk wan rek lay lay lila hi ha wa yaaram yow xif nga di dimbali ñu ngir yalla benn mo wax benn mo rek waxal benn mo rek xana yey tandar ba sax waru na de lii ma ni ko monsieur xanaa doo wax benn mo rek benn rek benn ma ni ko laa bëgg wotul rew mi de ci président yu ñaw yalla ci yalla musal lii macha allah ay gore ma ne ko moom de da nooru xalé sax ci ndeysaan ngeen man ko waxal lu ne nak waye fu la fay da caractère ak mën a fas kanamam kay nak mom xolel li xolel li ah ñëw ñaari peeri président da ngi tok mu way ma da koy boo xam caaf sa loxo lu ci neew yow mo man nga xolel li ah ah beneen président ba lonki na weere ah yàlla bu ci sa laxi yi di mel ne ndogoy loo mu dëngal ci li rek diko bom salaamaaleykum sal Ngari do wax ak mom benn mo rek benn. dit ki problème ak lexi lan la. wayo nak do wax benn mo benn. ñàkkul na am ngeen fu ngeen jaar yoom da xet bañante kess ay gore xana ñaaw sax war na de senegal nak li wara sante yalla bari na. dina ñaaway yo xam hmm. di melni kuñ fi tek rek daw. Alhamdulillah waajal ko suñu karawaat mi moom hakia. wax ak kii ah. tey gore jombi na jombi na. nii tey nga dee xool na la tey rek nga dee. fulaak fayda kay ni mu ko amee kii joxal na di dara mu rek di mel ne naaf kan la. xam naa tekkaaral sax waaru na waxuma kenn nag kii di at sëñ bi ndax mën na maa xam li ngay raayu lan la ak looy raay ak loola neexari sa yaram boo ko defoon cim réewam tëj na mel Ih. naka ba mu juddoo ba tey président nah, bu découragé damaa ngi guys. doog gis lii danga Hai. soleil xëy na fi ñu toog ñoom ñaar dañ fee bokk yàlla cappi cappee ne junjeere xew ba bayil wa ki tamit nak bëgg na sëlmu torop mom xana moom du mu ci atmi ah ma yay yeey yay mané ko sal nga reelam tor buru gede xawma ñoo dil cravate bu tuuti ndax sénégalais luñ ko yabé da yomb comme que yañu ko togal mo ku kun ñu yeb defaraat ko tuuti ah chum yow jekk cravate ko yoma xiyam ne ko sina cravate dina duggal ñu bari safar inshallah yoma xiyam ba nara a taxaw layoog mom mané ko borom pesetu fa ko la frappé bara fo xana amu ko andal ci wet mu am lu la dé ci waajooju nga xam ni ngay gëna a bu baax ki wolu mako dé mané ko lay woy mi ngi ñëw nonu mi ngi non di la ko bass woy ko ba xam yi yow mi te yaay kan ko sen du wax kala na a téré wax dé la xamul man toi tu es qui ko am lu ko nak yow madame xolo bi télu ta ah? boole wo mala ci nit yi yi yow fo boole sa bop d'accord bo woo ko ci nit ñi foo boole sa bop yow delloo sa sofu balaa wadd mi ngi ñëw di accès na ci sa jëbé merci ni la wala nga wut elage takk waa kii fu mu bay baña nuyo duma wax ak yow ah ko waxut ak mom du wax ak yow rek bop ci nit ñi ndax man dama xam ku bok ci nit ñi kan la ah président assemblée mi moom mën naa seetaan li mom du réd du raf du ref dara d'accord tok na do ñu dimbali nga tok ndax ki may ñu jàpp muy ngañ ngañ ni siara ji la lol da la waxon yalla nga gis kaaba ga amin ku dem mak re beug nga gis kaaba ga nak ga ndax bu yegge na yegga nga yaw bu lan yegge ne yegga nga kaaba ga dana wàcc da kaaba ga day daw lu bon bon jot na yegg iya, nga xamne yow de bo déparé bo genné sa kenn kaaba ga ba xamee day ñow day tok mak la joggé dem Madina tok ba nga ñib mu ñewat xamna ah, naa ne président assemblée man na seetaan xaj ji di xolé du wax il est temps nak assemblée ñu def ko entrant ah. ku bëgg dem tok dem toog waaw lii danga fa am mel na ku nekk marché am Cissé ah eh waxal nag bul ñu napp sa weeru rëy yi di mel na ay porte oto da nga wax de yéeg yéenay kan tuwaa tuye ki yow it yaay kan ba kenn du wax boo waxee dangaa war a wax boo waxul dangaa war a wax kon waxal c'est que habillement jaune noir mooy tàngaloo deretu nit quoi so yéenay kan ba waaye yéen ñi dimbal leen kii ngeen wax ko yéenay kan nag balaa dajji loo sam wi ah kenn du wax laa bëgg laaj te man da sama question bariwut yow mii di wax yaay kanit da bëgg naa ko xam wax deug yalla yaay nay kan président assemblée lo fi jëriñ do wax ki tay rek gadde gesso na la bul daw de yërëm yow yërëma sa bop nga yërëm président aji mi ci wéru rëy ndax man na ma xam président lo koy yërëme eh? ah ok njabotam gi lo ci wax ha ah, xana petit tek sax waaru na teg sa petit tek bi di rajja xi di melni reana wala ndaw sa sante Mines i bu ko fi wiyaan takkoon fii xaw ma fu ñu jëm bépp jaaykatu chauffeur bu nekk si dëkk bi rek maa ngi leen masaw bu baax a baax Bada chauffeur le chauffeur Omar chauffeur Baye Modou maa ngi leen masaw bu baax cat la ndegem lii mooy sa njaboot yërëm naa la ah, sama xol bi jeex na sa moom diis na ii yatu kan yow ah xam naa ni président maanu nga ba dee de am na ku ñu fal toujours day daan bi oyof képp kuñ fal de loolu lañ lay ñaanal yàlla na yan bi oyof loo gis yow mais sa bés diis na gann Ah! kon de sax warner. na de lii kot amuñu mbaam borom weer yu de mi ngi yërëm président romb ndax man lem sa kayit yi waaye ma xool très bien comme que mënoo wax lemal say kayit nga de ah eh, madame mi ci ndax man na xam ba xam Okay, lo ada kadi fof kata ko kon kan bu dé paré nga xamal na ma xam lo yuni yuni di melni ba yu ganni bo paré demal inshallah ben mo bi gëna ndaw bu ko waxat tay ko bul wax bul wax de kep ko rek bul wax de bul wax ok merci na keneen ñëw fi ñu lañ toog ñu wooñu nañu meeru natt bi yóbbu na xaalis ko Ah, mangga, nih? Ih, asum bayi sal kon kompilis ga. Mangga cewek gatong. Labbaik kala syari kala kala bay. Eh, la kala baik. Hey gore. Madam labbaik Allahumma la kala baik. Ndax mana makam? ma xam fo nek bay wax li li fan lah. sharika nga def sa deuxième attaque i la kala bay inna le madam la bayka la huma lak la bayka mel ne loolu rek nga xam ci wax ji de. Ah, wali mota ha nga ne wali lan yow. taxawali mulik. taxawal muli moy kan. jaaraat ci. taxawali mulik. sama xol jeexna la ha wa ah be la xasu moom du bay affaire gay may nek ci koñ be du mom sharika la. oh loolu laal do doogu jaaj ku aji ji rek ma ngi lay massaw bu baax bax metna len na leen maram la bay ka ndax man nga ngaa àndandoo ñom dox dank rek te bàyyi wax ci du deug ay goye la bay ka sax waru na de lii. ina li xam da waaw daa mel ne mi ngi baax de. yi ngay lan yow. takawali mulik. takawali mulik mom kañ lay taxaw mom ah. la ay goré gore ah madame la bayga ndax man nga ma jela sa kanam gi ma xool. ngay neexal yonente bi de natt bu waa koñ bi de nga fexé ba wat ko rek ah, ok. igore layla daa. kala kala ba. son nga bal bo sonnee da ngay ba ah. nga courage de bal baxna yi oh. mota moo baral ko baral ko baral wax ji baral ko eh kupes pesa sénat bi hmm waj jaw mo gën kan ci de Tar ma ñoo duggat assemblée xol ba xam monsieur le président mëno jall ci na, eh? yaay nga wax ak ko xamne ya, du rédu muñ monsieur le président ah tali may ñëk ci yow lay ñëk gitu. té nga xol kenen bu wax ak ki baax sax lo koy doy. ci di rey. nga man ci dara xol ko mëna yonu di na bayu gan lañ la wax ne ngay population bi ñokay laaj der ah mom dong sax mo fi toog ci dure bi am ko fi newon te daan ree kan la. Moustapha Niass la daan ree. da daan ree ba kekk ak bari won jamm ñass Niass. ko de du ree la sax. kilifa day ree. Ah, wax ji sax du lol monsieur le président mais est ce que jallu bañ aw jall ki yorutu jall ci ma a jent bari na dure mais. yàq nga sa énergie rek wàcc ngoko de dure kilifa day ree dure rek muñ sax do ko def. mom kay sax bu doon wax sax wax ju neex ya, sax baxna Wah, yo, yëpp da ko ci fekk so dil ah président aku xamul buur saay na xam buur Reva na reetaanal Eh, goreh. gore ree na ñetti mbañ ya ay gore waa nii la macha allah da ngaa góor yow sax dee ah sama kopi rena na dil ah sama yaay ji ma daal di ñëw ci yow maam booy jekk mu sor ndax man na xam tagal yow ah ku la tagal rek la pasel kan la du ii waa waalo président bi dagg jëree de arrêté la ataa ji neex na rek ngay fóoreel benn tànk te deeree rek nga bëgg a ah. ma waaw kañ li def nii. ah jekk mu soor comme xeexas kañ lépp di wax lépp ñàkk ne président am yi yaakaaroon am na ci comme ko jële am na keneen koo xam ne du ree mooñ du raf du xef xamoo ko kana. waaye fi la teg nga ne. ba tey ñëwagoo de hmm, ñooñu ñëpp xam nañ ko koy def tur wa kay laa bëgg nga wax comme que yaa sañ jaar ci lu ne. comme yaa ko tudd deman tudd ma ko. sa borom réew mi màtt wu. kay ay bëñam boo ko gisee daa màttu weesoo loolu kay du ree kooku ah, gore. di ree. na sa xel dal dina ree loolu rek nga bëggoon. yéen ñi nga xam ne nag da ngeen di jouer utiliser leen suma code promo Ndiaye 21 tout en majuscule lien bi mi ngi sama bio TikTok dem leen ngeen def seen dépôt moom a leen bonus 156 000 francs. dama leen ñu laaj. Aba ndax man damaa xam li ngay laaj lan la looy laaj. Aba nabar tuuti munoo boole dara question bu yéex na kan nga gis ci senegal muy way wengal gémmiñ kan lan gis muy way wengal gémmiñ ah gis nañ su koy way nara lek lekk micro bi dal mom gamom yow loolu nit wax nga gam ko di yom xaar mo won lako ko essence moo def mané ko sëñ Aba ndax man nga deglu mo won lako ko allez eh. déet Aba ñi wengal ci nga bokk yow xaar mo won la mbay rafet mbax na kon eh. eh. ah. yéen man de sax waru na le ah du mom du ma ko tek de du mom aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est hi lamiñ lan aujourd'hui aussi c'est un outil eh nangu len micro bi yow mi ngi koy yeey di señ bi sek yabil yabil yabil ay gore may xaar ya eh ndaysan public ba cum cuman yi la fecc daan jar dalam. dara yang wayam fecc det xanaa frère Aliou Mbaye Nder la moom ki ko ñawal borom abason so bi tey rek gàddu woon nañu àq ne këpp kat ndog xoole ma yi tay bass wala ay mel ay moket ana ñaw sax war na de macha allah yow mi caméra ndax man nga maa yóbbu ci tëggkat yi orchestre bram ram ah ndeysaan may si ñaay nga ñetti rase yi ndeysaan yak na naa ko de Kopet sax waaru na de jamono yi fecc histoire la park bi eh borom ciub bi ndax man na xam kan la yow eh, legui la xale yak pecc rek waye jamono yi lu am fecc no fecc mu bax ay ñew naan borom ciub bi ndax man na xam yow la kan ah sañ sa na di borom loxe yi kana ah? ay gore model bi de mom lañ daan wax siggi jam segi jam ay gore déet bu ree jëlam public ma xool ba xam nu ñuy daaneele eh, waaye ndaw sàmba mm. dañ leen a daamineel ba ci seen jumbox yi laay la sama mbay mi ci sama bi di layam layam moom neex na de macha allah waaye nag attention de yàlla waxul kenn dara kon nga xam ne niveau bi léegi international la. façon félicitation toj nga foofu. aw baaba gi dooma ci ñamala ñaama ci aw baaba gi yéen ñi nga xam ne nag da ngeen di jouer leen sama code promo Ndiaye 21 tout en majuscule lien bi mooy sama bio TikTok demal rek nga def sa dépôt première dépôt naal may bonus 156 000 francs